UCABFM, la radio citoyenne. UCABFM, nous sommes ici à Toubandam. UCABFM, cité Cheikh Ahmadou Bamba. xibaar yi fii si UCAB FM Pape Cheikh Mbaye. mbokk yi asalaamaaleykum wa barakaatu dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci ndaam daaru alimul xabiir xibaaru digg bëccëg bi. la gën a fees ci xibaar yi liggéeykat yi ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba xëy fësal seen ñugi-ñugi xool jafe yu tar yu ñu ngi koy jànkoonteel bokk na ca ñenn seen liggéeykat ya seen payoor gu balaa ñu caa jot lu ne danañ ko daj fa nekk ñu koy defar at mu ne dig leen ne dana noppi te dara suñu ko leen ay jafe-jafe yu ngi koy dund ñoom nag tax tey ji ñu woo taskatu xibaar yi fësal loolu di seen ñugi-ñugi xool ci toogaanu ñaxtu ba ko amal dinañ ci dikk gën ko yaatal ci biir jotaay ak xibaar yi hôpital Matlaboul Fawzeyni boobee ñenn seen ay dëkkandoo doon kër ya ca wet ga naqarlu lool lool la nga xam ne kon moom moo di ndox ma ñuy jóge ci biir hôpital ba di dugg ci seen euh, kër ya ñu ne nag euh, xeetu bon gune la ndox ma di am euh, deret ak laaj sa takk ay ping ak lu ne la ndox ma di indaale te nag ñu ne loolu tiit nañ ci seen wàllu wér gu yaram danañ ci dikk gën ko yaatal ci biir jotaay ak xibaar yi Mbàkke balaa yàgg dana am oto yu yees ka xam ne lu ni mel doon kii jiite regroupement chauffeur yi fa moom nag di xam le ne jamono yi procès bi daanaka sax noppi na njort na ne balaa màggal oto yi dana ñëw liggéey ba nag ginnaaw màggal lañ jàpp ne dana a leeral ci biir la jotaay ak xibaar yi mbokk yi lii mooy la gën a fës ci xibaar yi ne suuti di kenn ci faram fàcce gi ndeem soob na sunu borom. yi fii si UCAB FM Pape Pape Sayar Mbaye ci àddukaay bi machine ba cheikh bi yéen askan wi ci déglu bi rajo UCAB 103.5 di téeméer ak ñett yu tombal juróom ci bande FM bi internet bi ñetti w point a 2 itv point net wala ñetti w point sunu fm com YouTube bu ngeen bi ne UCAB TV live da ngeen ñu fa fekk tey la al euh, tey la talaata di ñaar fukki fan ak euh, juróom ci weeru tubaab di weeru sulet atum deux mille vingt trois di juróom-ñaari fan ci euh, muharam di weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi waxtu jamono ji ñu ngi ci quatorze heures trente quatre ñaari waxtu ci bëccëg fanweer ak ñeenti simili moo bootu ci kawam rajo université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru digg bëccëg bi. groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabir xibaaru digg bëccëg gi Pape Sayar mbay ci àddukaay bi machine ba Cheikh ba yéen askan ci déglu bi ni ñu leen ko waxe woon dañu koy doore ak syndicaliste ya nekk ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba tey jii ñu xëy amal ab toogaanum ñaxtu bu tey ak suba lañ ko war a amal neena nag seen ñuggi ñuggi xool lañ doon fësal bokk na ca jafe yi ñoo ngi koy dund ci seen kër kër googee ñuy liggéey ñenn sa ñoom daanaka balaa ñu jot seenu payoor ñu ne lu ne danañ ko jot danañ ko daj doog caa jot bu weesoo lool itam yeneen jafe-jafe yi ñu ngi koy dund ci wàllub liggéey ba taax ma ñuy defar ca biir l'hôpital ba saa su ne ñu leen di dig ne dana noppi boobaak léegi dara gisuñu ko ci ñu ne ak yeneen ci ay jafe yoo xam ne kon ñoo ngi ko ciy dund kay ñuy leeralal lu ni mel Pape Medoune Niane moom kenn la si ñuy jiite syndicat boobee la nga xam ne kon jot na ko caa leeral ci seen janaw taskatu xibaar yi ñu teewlu ko ci micro cheikh bi ma fa teewoon tey dañuy naqarlu gestion bi nga xamante ni moom la administration yore opital bi ndax dañu déposer plateforme revendicative waxtaan ak ñoom lañ signé woon ak ñoom defuñ ci dara bañ tolloo foofu ñu ne tey nag foog ñu jéebaane li nga xamante ni moo xew ci opital bi ndax fii la ñuy suturloo pour ñëw ci li tax ñuy sitting bokk na ci sama naataangoo bi wax na ko muy recrutement abusif yi ku wax recrutement abusif mooy hôpital bi dañ ko doxalee de sorte que mu am benn commission des ressources humaines képp ku ñuy jël ci hôpital bi danga war a jaar ci commission bi ñu waxtaan ci xool ndax hôpital bi bëgg na loolu wala bëgg ko wala attan ko wala attanu ko ñu doog ko jël loolu benn la ñaareel bi dafa am lu ñuy wax prime d'intéressement ñenn ñi di ko wax motivation muy loo xamante lu ñu liggéey la ca weer yële passé at weer bu ne su dee rek vingt cinq pour cent yooyu dafay ñëw ci personnel bi personnel bi rek dafa am ñu ñuy waxee ay stagiaire stagiaire yooyu loolu mooy seen salaire bu fekkente ne da toog di premier ba le vingt cinq te ñooñu joxoo leen seen xaalis yaa ngi leen di sonal yaa ngi leen di lor beneen bi ci topp mooy hôpital bi ñaari services yi nga xam ne c'est des services d'appui au diagnostic ñu koy tuddee laboratoire ak rajo ñu am ay réactifs yoo xam ne dañ koy manqué réactifs yooyu dana tax ba bilan préopératoire yi mënatuñ koo def am na yeneen bilan yoo xamante ni dañ ko sous-traité alors que machines yi ñu ngi fi su fekkoon jënd nañ réactifs yi kon normalement war nañ mën a def analyse yooyu te loolu day bokk ci prise en charge euh, malade yi parce que malade mënul hospitaliser fii ba pare muy def ay analyse di ko defee ci ay clinique loolu du dëgg du yoon beneen bi ci topp mooy augmentation yi nga xamante ni état attribué na ko personnel yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci santé dañu bëggoon li nga xamante ni moo féete ci suñu boor ñu koy dugal ci bulletin de salaire yi waaw fay gi ñu koy fayee nii neexuñu bu ñu sañoon mu dugg ci salaire bulletin de salaire loolu mooy garanti beneen bi ci topp mooy formation personnelle bi loolu tamit dañoo bëgg lañ ci daan liggéey ñu dolli ko ci loolu la wax formation continue ñi nga xamante nii dañuy jàngiwaat te la ñuy jàngiwaat bu ñu ñëwaatee dañ koy exercer ci hôpital bi mu yokk ay recette dooleel ñu ba tax lu ñu bëgg a régler ñu régler ko loolu ci la bokk moom tamit léegi nag CMU bi loolu nag dañuy lancer un appel à l'État parce que moom mooy fay CMU l'hôpital est en cours d'une dette d'un yoo xamante ni bi nga xamante ni jox nañu tout dernièrement xaalis li ñu jox dafa tuuti cent million te hôpital bi CMU bi moo ko sonal loolu nag suñ sañoon état bi mu dégg ñu xam ne ne hôpital Matlaboul Fawzeyni mi ngi sonn lool lool lool te li ko sonal mooy CMU bi moo ko sonal beneen bi ci des mooy bâtiment pédiatrie bi sunu administration bi ñoom ñoo ko initié mais boobaak léegi munul fexe ba avancé te loolu tamit xaalis bu bari lañ ci def te wax nañ ne toujours nañ xool nan la ñuy saytoo xaalis ba nga xamante ni dem na foofu parce que loolu tamit leeruñu leeruñu beneen bi ci des mooy bâtiment bu mag bi nga xam ne état bi tamit moo ko fi moo ko fi tabax boobaak léegi dañ ne woon te màggalu daaw lañ koy ubbi kenn ubbeegu ko ba léegi kon loolu il est temps nous lançons un appel à à ñu jàppale ñu ci parce que loolu rek moo mën a souffler hôpital bi loolu marché yi moom wóoruñu waaye lenteur bi ndax dan ne woon ci at lañ koy tabax léegi mu ngi ci ñaari at léegi lii lépp bu saafarawul wax nañ ko fii lañ ko mën a waxee àdduna bi yëpp dégg ko ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa te ŋànk wàllu wér-gi-yaram gi dégg nañ ko bu fekkee jóge nañ fii te defuñ ci dara on passe à la vitesse supérieure mooy day série de grève ba baa ñuy régler loolu et puis nag dañuy dénoncer nag gestion bi nga xam ne moo am ci hôpital bi c'est une gestion boo xamante jaarul yoon même bokk na ci suñu agence comptable bi parce que fii li nga xamante ni mooy génn xaalis bu fekkee ki ko war a génne duñ ko gis guddi duñ ko gis bëccëg te amul benn délégation de pouvoir loolu day tee hôpital bi. loolu doon kàddu yi Pape Medoune ñaan mi nga xam ne kon bokk ci syndicaliste yi nekk ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba tey ji ñu xëyoon doon jano taskatu xibaar yi ci sitting doon toggaanam ñaxtu boo xam ne moom la ñu xëyee ñu ne tey ak ëllëg lañu ko fas yéene def bu fekkee tànqam lu nañ li nag danañ ci jëlaat yeneen ci ay matuwaay. hôpital Matlaboul Fawzeyni boobe sax du ko sori ndax seen ay dëkkandoo ñuggi-ñuggi xool la nu am doon ko wane nee nu ndox may génne ca l'hôpital ba di walangaan di jaar ci seen kër yi eh, jafe-jafe la leen jural ndax kat nee ndox ma lu lay indaale deret ak ping ak lenn lañ sa teg lu ne eh, daf ko fa yóbbaale te nag tiit nañu ci seen wàllu ko wér gi yaram Balla Mbodj kenn la ci dëkkandoo ya foofe la mu ca yëkkati ci ay kàddu ñu teewlu ko. fii cas bi sax yàgg na ko ça fait longtemps ay deux ans trois yàgg na. depuis hôpital bi sancee ba léegi mais dafa gën a garaaw pour l'instant nii ndax euh, dañoo seetlu ne ñi dekkee ci côté hôpital bi diggante hôpital bi ak fi ñuy wax bopp tali euh, ndox mi nga xam ne mooy jóge ci biir hôpital bi euh, hôpital bi au lieu que ñu def ci assainissement boo xam ne dañ koy yóbbu marché jaanatu parce que foofu am na benn bassin bu fa nekk léegi dañoo bënn miir bi ndox mi ndox mi hôpital bi yëpp di dugg ci kër jàmbur yi te fi ay daara ak xale yi dañ fi bari fi ndool nii boo see yaa ngi seen ndox mi ne ci ci mbedd bu mag mi mooy bunt soow hôpital bi mbedd mi ko continuer noonu ndox mi yëpp foofu la dayoo dugg ci kër jàmbur yi te loolu kenn ku ne xam ne micro day am micro boo xam ne nit ñi di ko yi ak xale di ci jaar baaxul. ndoxu taw yi la wala yeneen ndox ndoxu taw yi la ndoxu taw yi la. ndoxu taw yi mais xam nga hôpital dafa garaaw hmm. parce que micro yi yëpp euh, day dayaloo ci ndox mi. di di di dugg ci kër jàmbur yi parce que normalement euh, dañ ko waroon a euh, assun dafa wutal assainissement boo xam dañ ko yóbbu ba ba ba ba ba ba marché jant wala buñ ko mënul ñu fat ñu fatt bën bën yi ñu fatt bën bën yi di ko manqué di ko yóbbu waaye di bën hôpital bu toll nii nga bën ko muy dugg ci kër jàmbur loolu kenn ko xam ne garaaw na te loolu boo xoolee euh, Touba gépp la mboolem travaux yi nga xam ne def nañ ko fi amul assainissement yëpp du jàngatu rek foo travaux boo gis ñu def ko tuubaa rek saafara su jur jàngoro lay doon parce que def travaux ba pare muy indil askan wi problème loolu bañoon ko bañoon koo def moo ko gën sincèrement muy muy loo xam daal askanu jant yëpp ñu ngi am coono yoo xam ne bu xasee ba taw nawet bu xasee ba ñëw kenn duutu am jàmm surtout daare yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi nga xam ne kër yëpp yàqu na ngir ndoxum mi nga xam ne mooy jóge ci hôpital bi. ndox bi da ngay gis ay lañ sa teg ay pusaat deret yeeg yëpp. ci biir parce que hôpital la lépp luy ko rek bu xasee bu xasee ba bu xasee ba ba ba tuuru si biir euh, yëpp day ndox mi da koy raxasal mu dugg si kër jàmm te kenn ku ne xam na ne baaxul ci wér-gu-yaram surtout côté na ñoom waruñu sax permettre loolu muy dugg ci kër jàmm parce que hôpital dafa garaaw boo duggee sax normalement da nga war xam ne ci biir hôpital bi lay te loolu kenn ku ne xam ne ne dafa garaaw am na tamit beneen beneen beneen loo xam ne lu ñu fi seetlu mooy yax yi nga xam ne ñu ngi koy taal fii guddi mooy yi yi ñuy opéré xeet yu noonu fii dañ ko fiy taal guddi bu ñu ko xesee taal koñ bi kenn duutu noyyi te loolu kenn ku ne xam ne micro bu garaaw la te loolu lépp ñi nga xam ne ñoo dëkk ci hôpital bi li li wër hôpital bi lépp loolu ñu ngi koy te loolu ñàkk ay taxaw képp la parce que lii lu ko li ko hôpital bu toll nii lu ko defar du dara mais nag léppi Tuubaa noonu la demee ay taxaw si boobu la dëkk bi amul sincèrement askan wi sonn nañ gis ñu te ñoo ngi ciy dund dund yoo xam ne métti na mais amuñu ko leen ko saafara amuñu fuñu ko jooyee moo tax ñu bari fii bu xas nawet xasee ñëw seen kër yëpp ay yàqu ci bi képp lañ ko teg. lan ngeen bëgg. lu ñu bëgg mooy ku ñu dimbali seen ndox mi rek ndox mi solution mun na am parce que marché jant baa ngi tout près même pas 300 mètres 400 mètres ñu yóbbu ndox mi ci marché jant parce que am benn ba bu ne foofu boo xam ne pour ndox ndoxam taw bi képp lañ fa doon dajale euh, ndox mi nekk yaakaar si saa ci foofu dematu fa mi hôpital bi war nañ ko mën a jël yóbbu ko ci marché jànnatu bi loolu rek bu amee rek jàmm nañu mais li ci gën a garaaw rek mooy xale yeeg taalib yi nga xam ne bu xasee taw ñu nekk ci biir ndox mi ci nooy nooy koo xam ne après ay feebar yu métti leen jural te loolu kenn ku nga xam ne la mbir mu garaaw la loolu doon kàddu yi euh, Balla Mbodj kenn ci dëkkandooy hôpital Matlaboul Fawzeyni Touba ak jafe-jafe yu ñu ne moom la ñu dund euh, ci ndox may génne ca l'hôpital ba di walangaan di jaar ci seen kër yi ñu ne euh, jafe-jafe la leen di jural ñu ko doon teelu ci micro Cheikh Bey mbokk yi ngeen ñu topp ci 103.5 14 heures di ñaari waxtu ñeent fukk ñeenti simili moo bootu ca kaw ci kër gu mag ca Njaareem ak la ko wër. rajo. njaareem la ñu dem kër gu mag foofe ñii di askan wa fay nekk ne ñoom itam sonn nañu lool ci mi xam ne kon moom lañ leen bàyyee ci yoonu yàqu yi nga xam ne daanaka dara mënatuñu ko ñëw ci bëri i dëkkuwaay jafe-jafe la ñu fay am ak seetaan goo xam ne ñu dañ leen koo seetaan tax nag ñu yëkkati seen ay kàddu woote ndimbal sunu naataangooy Baol Times leen ñenn sa ñoom ñu teewlu leen. te xam ne ñun waa nekk sama buddu kër man mi nekk sama bunt kër sonn naa at mu jot mu ne lu ma yor ci xaalis yam na ci wekket bu ma yor yam na ci ndox mi dugg sama biir kër gi daan na sama garage daan na sama lépp ndox mi sama biir kër la nekk sonn naa nag sonn naa bu baax a baax a baax sonn naa ak ñi ma wër ñëpp sonn nañu sonn nañ ci ndox mi sonn nañ trop bu ñu jàppale nañ ñu jël man sala ci am laa tudd sonn naa ndox mi bu ñëwee ci sama buntu kër lay nekk roñ naa xeer roñ naa kabi xeer ba sonn sonn naa trop sonn naa. moom at mu jot rek nii la ñu dundee moom. suñu xale yi bu nawet jotee dañuy ami picc ami góom ndax amuñu suñu jaar ci biir ndox mi la ñuy dañuy jënd ordonnance ba dagg suñu foos yi day fees dell ak ndox tànk la ñuy dëkke guddeeg bëccëg oto bi boo ko wooyee ñetti junni nga koy fay mu tanqal la boo bu ci ëllëg saa mu tawaat ndox mi solu ci foos bi nga tànqati fay ñetti junni xam nga loolu metti na metti na ci baadoo la torop mais nawet bi daal metti na torop ba si télé nii sax ñun nga xam ne liggéey liggéeykat lañ jagataay lañ am moom la ñuy liggéey yaa ngi dégg suñu liggéey suñu yorul jagataay taxi duñ liggéey comprendre nga si jagat jagataay la ñu xam ku ñu xam xam ne si liggéey yaa ngi dégg mais xam nga lii jaaduwut xam nga ndox mi fii nii kenn mënta jaar fenn kenn mëntul liggéey yaa ngi dégg ndox mi da ngay toog sax mu ñëw di jaar sa kaw barki maam Seera Fall ngay mu ñëw di jaar sa kaw xam nga loolu du yoon nga am na yoo xam war a dimbali quoi ñun seleuse bi ndax xam ne ñun jagataay lañ yor la ñuy liggéey comprendre nga buñ liggéey jagataay du liggéey ay njaboot war a tere suñu yaay war a tere suñu papa comprendre nga am na yoo xamante ne naay sul quoi xool ndox mi dañuy toog mu jaay suñ kaw comprendre nga te yooyu noonu rafetul ko ah maire dañu woon na fi bi fi ñëwee it wax na natt na xool waaye daal ba léegi li nga dëkk bi ni mel ko lii lépp am ndox la lii lépp c'est trop lii moom baaxut wax dëgg yàlla bu ñu ci mënee dimbali te yàlla tax parce que kër yi sax day dem ba ndox mi bu oto yi jàllee day dugg ci biir kër yi loolu rafetut waaw rafetut nañ xool ni ñuy def parce que xaalis bi bëri na ci réew mi dañuy yàq rek nañ defar suñu réew mi ngir yàlla ak yonent bi parce que ku ñu jàppale nag ñu jàppale la ku ñu jàppale wut ñu téye suñu ay jeunes lañ te jeunes macha allah bëgg nañ dëkk bi nañu jàppale ci dëkk bi te yàlla tax. fii ku ñëw da ngay romb jaal seen yoon nekkut fii nii yeneen tëli yi ngay defar seen yoon seen yoon ku ñëw da ngay romb jaal te yooyu noonu tamit naaj sul quoi ñun ñëpp ñoo yem ñëpp lañu war a yemale comprendre nga. ñu tali bi danañ la sant bu baax ndax safar baa ngi ñëw te ku ne xam na ne fii moo yoonu safar moo yoonu safar bi oto yëpp fii la ñuy jaar lii su fi jóg na jógul nag oto yi duñ fi mën a jaar lii kenn du sol sa yére sol sa yére yu baax di di jaar sa oto sa yére di yàqu loolu normal Malick Fall daan nañu dimbale ci kàttanu yàlla ak yonent ndax ñun amuñu amuñu lu dul sëñ Touba ñun sëñ Touba rek la ñu noyyee fi mu ne talatuñu dara nax safar bi tant que safar bi passé wut màggal gi passé wut talatuñu dara ndax ñun sëñ Touba rek lañuy noyee moom la ñuy dunde nañu dimbale daal jàppale nu ngir yàlla defal ñu suñu tali bi balaa safar bee ñëw ñu mën koo def nañ ko daan defee waaw. Ah, ndax fii ci tëgg Jóobeen Gueye ah yëf yi moom tali bi moom dagg na complet ba oto yëpp benn mënatul a jàll. waaw muy fii sama buntu kër bu ma bu ma nee Ba Yacine Ba Cheikh Yacine Diop mboolem ku fi nekk defe naa xam na ma waaye nag wax dëgg yàlla fii day moom day kenn mënatul a jàll fii ci tëgg jógeen wax dëgg yàlla kenn mënatul a jàll ah kon nag dañu bëgg naa man day man sama paaru bopp rek ndax ku ñu jàppale ci yëf yi ndax ba nit ñi man di jàll ndax taw bi day yàq na affaire bi yëpp maa ngi leen koy ñaan ngir yàlla ak yoon bi sëriñ ñu ñëw ñu ñëw bu ñu mënoon ñu ñëw tey tey seetsi ko rek ah di eh, dina dina gën a baax. damaa sonn nag sonn naa trop nañ ñu dimbale ngir yàlla ak jëmi sëriñ Tuubaa Mbàkke samal baa ñëw kenn du mënta jaar suñu fii sonn nañ trop sonn nañ bu baax a baax a baax sonn nañ sama nijaay sa Yaasin dafa sonn mooy mooy kilifa eh, fii dëgg Njoobeen te moom sonn na wax na ba sonn mënu ci dara. sonn nañ trop. ñu ñëw dimbalu ñu ngir yàlla te yàlla tax ñu ñëw dimbalu ñu ndax booba ñu ngi leen di déglu pour pour pour ñu jàppale ñu si ndox mi pour ñu ñëw ngir yàlla te yàlla tax dafa ñu tëli bi dégg ndox mi bañ a bañ a jàll fii ñu mën a normal yaa dégg ndax fii da am ay ay ay xale am ay mag am ay maire comprendre nga pour si si sutur lu ko wax dañoo am xeeñ na trop boo toogee sa kaw lay jaar ak yooyu noonu xam nga loolu doon naagisu ñu dimbali ñu te yàlla tax loolu doon ñeen ci askanu foofee ca kër gu mag ca njaareem ma doon rek feesal jafe-jafe yi ñu ngi koy dund ci wàllu ko ndox mi bëgg ku leen ca dimbale ñeneen ñoo xam ne jamono ji ñu ngi wut pexe ngir dimbale askan wi mooy association Nourou Daara ni Touba ca kanam ni ko sëriñ bi santaane sàkk ko si ñoom ngir ñu jàppale waa Maawu Rahmatu ci ndoxum Touba ndox mi ñu jëfandikoo tax naka fan yi yëpp ñu ngi ci ay liggéey ngir defaraat yenn ci ay fatt-fatt ni nu ko baaxoo itam ci jotaayu xibaar yi di ànd ak ñoom ngir ñuy leeral fu ñu toll ci liggéey bi ñu ngi waat ci buubu jokko gi ak sëriñ Mbay Ten bokk si ñi koy taxawu sëriñ bay maa ngi lay nuyu. Euh, Pape Serre ñu ngi lay euh, fay. Ah, yéen a ngi wéyal liggéey bi tey boo ñu doon wax lan lañ ci mën a jàpp ak fan ngeen ci toll. jërëjëf Pape Serre euh, ginnaaw bu nu jaajëfalee ñiy déglu UCAB FM di ànd ak yéen ci jotaayu xibaar yi tey nag nekk li nga xam ne moom mooy ñetteelu bis bi nga xam ne jóg nañu ngir fas yéene taxawu askan wi féete Touba ngir ndoxum naan mi mën a jàppandi xam nga ne. Euh, sunu première étape moo nekkoon euh, forage bu euh, fi nga xam ne moom mooy Touba Ndigal deuxième étape bi nag tey ñi ngi xëy ci fi nga xam ne moom mooy kër Serigne Touba gi nga xam ne wala jumaay tubaa ji nga xam ne moom mooy barab bi ñëpp di siyaar si taliñ bàyyi ko ci jumaa ji jëm marché Ocass romb kër Serigne Abdoulaat Mbacke ci seen ndeyjoor booy dem waaye romb kër Serigne Fallou kër soxna may ne ci ginnaaw foofu nag moo am point boo xam ne yàgg na lool lool kenn mënu fa jaar Touba ca kanam nag ni mu ko baaxoo defee rek. ànd ko ak euh, waa hydraulique ak waa OFOR ak waa Maawu Rahmati ak association euh, daayira yi nga xam ne ñooy plombier yi ci njiitul baay Diagne euh, xëy nañu tey ànd ak techniciens yi ngir fas yéene jublu ci barab boobu Touba ca kanam nag ni ko baaxoo def rek ci ndigalu seriñ bi mboolem luy jumtukaay boo xam ne eh, liggéeyukaay la indi nañ ko nañ fa benn tracto pelle ak ñaari moto pompe yoo xam ne benn bu ak benn bu ndaw ndax foofu pape bi ñu egsee ndox mi bari na lool waaye nag bi ñu tàmbalee di set gas ngir xam ah, fan la fuite bi nekk ah, tuyau bi dafa sore ci suuf lool mu mel ni ba fi may wax ak yow ah, tractopelle bi moo ngi gas waaye jotaguñu tuyau bi ngir xam exact fan la ndox mi di génne ndax ndox mi day génn lu bari moto pompe yi di pompe ñuy door di mën a gas di continuer waaye terewul rek équipe bi ak techniciens yi ñu ngi fa nekk ci njiitul Serigne Ousmane bi nga xam ne moo fa nekkal lii di Ofor ànd ak équipe bu ama am solo. sëñ Mbacke Seck ak sëriñ Modou Diagne sëriñ Ibrahima Lo ak sëriñ Moussa Diagne ak sëñ Pape Sour ñoom ñoo nekk ci équipe boobu muy li nga xam ne mooy euh, deuxième étape bi. ginnaaw loolu euh, Pape Saer def nañu troisième euh, point muy troisième étape bi muy fële ci jantul Mahwa ginnaaw kër sëriñ Cheikh Béthio Thioune boo ñëwee ci tali bi bàyyi ko ci hôpitalu Ndiaye tourné jëm fi nga xam ne mooy Baye ga tali bi maanaam yoon wi jëm si penku ci mbé angle bi ngay def dafa am. foofu nag dafa am ñaari tuyau euh, deux cent yoo xam ne diamètre deux cent ñoo fa nekk benn bi euh, di bu màggat benn bi nekk bu yees benn bi nag euh, dafa doxul moo tax li féete bayfal ga ak côté boobu yëpp amuñu ndox Touba Kanam nag tey xëy fa ak technicien yi mu àndal ku mel ni Serigne Cheikhouna Gueye jiite plombier yi ànd ak Serigne Ali Dramé bu hydraulique di UMT ak ki nga xam ne moom mooy kii di Serigne Modou waaye ànd ak Serigne Pape Kouma ak Serigne Saliou Ba ñoom ñoo fa nekk ci liggéey bu am solo boobu. mu mel ni li ñu soxla foofu rek mooy euh, dinañ soxla benn euh, tee euh, diamètre deux cent waaye dinañ soxla benn juin jubóo boo xam ne tamit diamètre deux cent lay nekk ngir ñu mën a dagg tuyau bi monter tee bi man ko branché fële pour ñi nga xam ne ñoo féete fi nga xam ne mooy bay bayfal ga ak li jëm ci booru janatu ñu mën a am ndox loolu mooy ñaareelu état bi Serigne Pape Saer waaye xam nga Touba ca kanam dafa ne ci fànn yu baree bari ñetteel bi nag moom mooy tey jii ñi nga xam ne ñoo yore opération wallu bu Touba kanam nga xam ne kër yi at mu ñu génn rek def nañu neuf neuf cent soixante-dix-sept villa yoo xam ne génn nañ fa ndox mu taw mi fa nekkoon opération wala boobu tàmbali nañu tey jii jël nañu lu tolloog cent dix tuyaux yu diamètre deux cent nga xam ne benn bu ci nekk euh, PN seize la ñu jël cinquante cinq yóbbu ko fële nga xam ne mooy dégg Dakar jël cinquante cinq yóbbu ko Soura ngir fas yéene ko monté ba bu ñuy raccol ndox mi di ko raccordé ci réseau bi ndax bu njëkk dafa amoon ay racole yoo xam ne dañ ko daan daan traversé tali yi oto yi ci jaare day dagg wala muy génn waaye Touba ca kanam jël na ci matuwaay jël ay tuyaux diamètre deux cent yoo xam ne PN 16 la ngir ñu man bu ñuy vidé ndox mi lépp mën a jàppale kon daal Pape ci tënk Touba ca kanam guddi ak bëccëg subaa ngoon mi ngi ci lu askan wi nga xam ne ñu dëkk dëkk bu sell bi di Touba. incha allah rabbi kon sëriñ Mbaye ñu lay joxaat day ci beneen jotaayu xibaar incha allah ngir ngeen ñu leer liggéey bi. jërëjëf Serigne Mbaye Tène kon doon ñu leeral rek lu jëm ci wàllu ko liggéey bu Touba ca kanam mi ngi koy taxaw ci ndigalul xalif général des Mourides ngir jàppale maaw rahmati ci lu soxal kon euh, ndox mi nga xam ne kon moom la ñuy jëfandikoo ngir rek mu gën a mën a jàppandi ci askan wi rawatina euh, jamono ju ñu ci bëri bëri ñu ngi ci doon euh, jàmbat jafe-jafe yu ci am. xibaar ci gàttal jëm rek ci coppiku gu yaatu goo xam ne nemmeeku nañu ko ci wàllu police daanaka nag commissariat yu bëree bëri njiit ya fa nekkoon ñu tuxal leen diwaanu Njaareem desu ci ginnaaw commissaire Mass Thioban nekkoon commissaire bu ndaamaatu moom jamono ji na kon jëlee nañu ko fi mu war a nekki commissaire bu Plateau ca Ndakaaru. Senghane Ndekki ba fi mu toll nii moom moo nekkoon adjoint commissaire central bu cees moom nag moo war a ñëw wuutu si commissaire Thioban ci Ndamaatu. commissaire ñima euh, Diédhiou nekkoon euh, commissaire bu Bambey moom nag moo war a dem nekk commissaire euh, central bu Louga Albert Ndiour nekkoon kon moom fi mu toll nii kon moo nekkoon commissaire bu Kébémer moom nag moo war a ñëw ca Bambey wuutu si ko kii di Ousmane Seydi nekkoon ay jamono chef brigade stupéfiant bu njaareem doon wàllu ñoll wi ki xam kon moo ko doon xeex. [r] euh, moom nag moo war a dem euh, nekk commissaire :fra bu Koungheul war fa wuutu nag Alioune Fall mi nga xam ne jamono ji moo war a nekk euh, commissaire bu Mbacke kon loolu mu doon coppeeku yaatu goo xam ne kon nemmeeku nanu ko ci police waaye loole ci bataaxal biñ ci jot mooy li ci soxal diwaanu %e Ndiarème incha allah allahu :ar rabi :ar danañu ci dellusiwaat mbokki ngeen di wéy di ñu topp ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñaari waxtu ci bëccëg juróom fukk ak juróom benn simili moo boote ci kawam ñu wéyandi. UCAB FM fii ci Touba Ndam. Mbàkke balaa yàgg dara danañu am oto yu yees loolee ka ko xamle mooy que jiite regroupement chauffeur ya Abdou Aziz Lo nee nag jamono ji daanaka sax liggéey ba la ca des bare wut lu ci ëpp nag ci lijjanti ba daanaka noppi na njort na sax ne balaa màggal gi oto yi danañ ci war a teew waaye la mu gis rek ne mooy oto yi moom balaa liggéey bi moom xam naa ne ginnaaw màggal kon lanu ko fas yéene tàmbali lu jëm ci wàllu oto yooyu Mbàkke war a dalloo Modou Kane demoon na seeti ko. lam mu ko ca leeral Abdoul Aziz Lo ñu teewlu ko. Abdoul Aziz Lo général du regroupement des chauffeurs de Mbacké. oto yi ñëwut ci Mbacké département bépp lay ñëw ndax waa département bépp ñoo ci bindu oto yi ñetti façon oto la am na ay huit place am na ay onze places am na ay quatorze places ñetti façon oto la ñetti façon oto yooyu nag bi nga xamee ne président am na ay partenaires boo xam ne moo moo koy defal changement de parc bi. du du Mbàkke département de Mbàkke la képp ku bokk ci département de Mbàkke bu la neexee nga ñëw bokk ci GIE wu gare bi nag moo leen couvrir ñoom ñëpp. remplacement wu oto yooyu moom dara wëraguñ ci ndax ñii daw Touba Mbàkke ñoom ñëpp inscrire nañ ci am nañ 474 demandes yoo xam ne dem na tey ñu ngi fi te fi mu ne presque li li ma fi jotaat mat na 100. lépp dañuy woowaat CETUD ñu defal ñu ligne yi CETUD ñooy ñëw defar ligne yi fépp lay daw. dana danañ daw biir Touba danañ daw Touba ak Mbacké danañu daw euh, ci ci région yi ndax onze places ci région yi lañ jëm quatorze places ci région yi lañ jëm mais huit places yi ñooy nekk diggante Touba ak Mbacké waaw huit places Touba ak Mbacké huit places xool nga huit places yaa ngi nii façon oto yaa gis nga leen huit places gis nga ko nii huit huit places onze places quatorze places oto yëpp a ngi nii huit places yi ñooy daw diggante Touba Mbacké ñooy urbain onze places onze places yi ak quatorze places rek ñoom fu leen neex dem mi ngi mel ne comme comme cette place yeeg ak minicar yi fu leen neex dem ñoom. entreprise bi ñu ciy lëkkaloo mi ngi nii société commerciale am ni ndaw Sarr moom lañ ciy lëkkalool bi ñu joxee affaire bi biñ ñu joxee oto yi itam ñun nitu oto lañ dañoo daal di wut dañoo daal dañoo daal ne ko léegi dañuy dem ci suñ technicien. biñ demee jox ko Cheikh Fall mécanicien ku ne xam na ko mu mu woowaa ji mu yónnee ko fiche technique bi bi mu ko yónnee fiche technique bi mu yor ko ba kii ne oto baax nañ ay escania lañ bind leen ma mais bu oto bonoon itam duñ ko indi ci département bi nombre nombre oto bi war a ñëw xaw ma waaye am nañ 476 yoo xam ne biir na ma ne dana ñëw waaw ak ñeneen ñiy bindu mise en oeuvre mise en oeuvre bi léegi ñu ko léegi ñu commencé ndax suñu paree rek ci suñu suñu paree rek ci recensement bi li ñu recensé woon moom dem na mooy première vague bi euh, envoyé nañ la euh, oto oto yi spécimen oto yaa ngi fii léegi envoyé envoyé nañ ko oto yi war a daw fii incha allah daal dootu yàgg ndem soob na yàlla balaa màggal Tuubaa mën naa am moom danañ ñëw après màggal nag la ñu commencé liggéey mais balaa màggal moom oto yi danañ ñëw xibaar yi fii si UCAB FM Pape mbokk yi ñu sant leen gërëm leen loolee fi ruusoon ci ay xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye farawoon ci àddukaay bi machine du Cheikh bi yéen askanu ci déglu bi laata ñuy tàggoo ñu fàttali leen la ca gënoon a fees groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba la gënoon a fës ci xibaar yi syndicaliste ya nekk ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba xëy nag fësal seen ñu gi xool jafe-jafe yi ñu i payoor balaa ñu ca jot lu ko daj taax mañ fa ngeen a tegu ki nga xam ne kon moom ma di Pape Medoune Niane ma doon wax ci seenu retour ci biir jotaay ak xibaar yi ñenn ci dëkkandoo hôpital Matlaboul Fawzeyni tam seen jafe-jafe fësal nañu ko mu doon ndox may jóge ci l'hôpital ba di wal di dugg seen kër yi ñu ne nag ndox ma lu leen la leen mën a indil ci ay jafe-jafe bokk na ca deret yàq ping yàq yi yëpp yoo xam ne kon dafay walaale di dugg sa ñoom Balla Mbodj doon kenn ci dëkkandoo yi la nga xam ne kon jot na ko caa gaara jot ngeen ko teewlu ci biir jotaay ak xibaar yi Mbàkke balaa dara balaa yàgg dara incha allah danañu dalloo ay daama yu yees yoo xam ne xamle ne daanaka liggéey ba noppi na te lijjanti bi li soreetul la ca des njort sax balaa màggal gi oto yi danoonu egsi waaye ginnaaw màggal dañ tàmbali liggéey bi Pape Abdou Aziz Lo ma leen jiite jot ngeen teewlu la nga xam ne jot na ko ca gaaral ci biir jotaay ak xibaar yi coppitu gu am ci wàllum police jot nañu ca yaatal ak itam commissaire cobaan bi nekkoon ca Ndaamaatu war a dem ca Ndakaaru naka noonu itam ca Bambey commissaire ba fa nekkoon itam doon ñima jéeju itam ñu ko fi nekki Mbàkke itam am commissaire bu yees loole jot nañ ko faram yëngatu goo xam ne kon am na fi mbokki li mooy li fi ruusoon ci ay xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbay moo fare woon ci addukaay bi machine bi Cheikh bi yéen askanu ci déglu bi rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci tuuba Mbacke ci ndaam Daaru Alimul Xabir Euh, yeneen xibaar incha allahu rabbi guddi la doon vingt heures ngeen di ñu bàyyi xel ci téeméer ak ñett yu tombal juróom di cent trois cinq internet bi ñetti w point sunu fm point com wala ñetti w point a2 itv point net youtube du ngeen bindee UCAD TV live da nga fa fekk. ci kanam tuuti bu 16 jotee seen émission Côté de l'Art Serigne Fallou Pape Seck ngeen ci fas yéene àndal incha allah rabi bu nappee abal waa kër gi Oustaz Ndongo Mbaye ak waa kër gi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp bu raw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na defal kenn daluk jàmm programme yi day wéy di rajo bi waxtaanu Serigne Sambay ci télé bi yeneen ci ay programme jërë ngeen jëfati.